bi yeesu waxee loolu ba noppi mbooloo ma daldi waaru ca njàngaleem ndaxte jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni xutbakat amul